asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fédération daayira maam yi nekkee ci Dakar ci njiital soxna maam jaara bintu cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke ñoo lëkkaloo ak Lamp Fall TV fas yéene amal plateau bu am solo di plateau boo xam ne dañ cee fas yéene waxtaane xamala leen ak daara maam jaara nekkee ci Poroxaan di daara ji nga xam ne dañ ko jagleel maam jaara yi di leen ci jàngal alxuraanul karim ak yar ci ay projet yu yaatu yoo xam ne moom lañ fas yéene taxawal ci daara ja li ñu jot door ci yooyu la projet ak yi nga xam ne moom moo ci des lépp daa ngeen ko am ci plateau spécial bi ñu fas ni amal ci Lamp Fall TV El Hadji Fallou Syll ak soxna May Jenn fas ni présenté plateau bu am solo bi ñu fas yéene cee dalal soxna Mame Diarra Mbacke bintu Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbacke Bachir mi nga xam ni moo jiite fédération daayira Mame Diarra ak soxna maam Awa Dem di directrice des études bu daara Mame Diarra ju Poroxaan ji ak soxna Assou Diouf mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllum communication fédération daayira Mame Diarra ak soxna Aysatu Ndaw mi jëwrinu ci am intervention Serigne Mame Thierno Silla di jëwriñu Italie Soxna Mané Thiam di jëwriñu France ak Serigne Bassirou Diop di jëwriñu Espagne plateau bu am solo bi samedi lay doon le 13 août 2022 bu 21h30 jotee di dëppoo fukki fan ak ñeent ci muharram atu 1444 ginnaaw gàddaay gi ñu koy bàyyiloo xel mbooleem jullit yi ak mbooleem taalibe yi ci ak leeral jëm ci daari poroxaan ji ak mbooleem projet yi nga xam ne moom lañ fas yéene taxawal ci jilee daara bu ko kenn wuute